parrainage yi également. ah parrainage parce que am na ay cas mu ne ko validul ba mu defaatee. recours bi on lui a a dit que dafa amoon problème de vérification et tout est-ce que gisoon ni war hmm, nañu. très bonne nouvelle affaire daaf bi et tout pour ñu xool réellement sax amuñu problème logistique et tout parce que c'est pas normal. c'est pas normal ñu dem déposer les mêmes choses. dara dafa amoon problème d'unification. c'est pas normal. une deuxième ñu revenir si kaw euh, Amsatou Sow Sidibé ak PDS Pape Djibril Fall. j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut voler tes euh, <laughs> parrainages et tout. après nga génn entre guillemets voilà. après nga génn affaire bi naka la mën a yombee noonu selon vous c'est c'est lecture d'ensemble. Euh, question bu njëkk bi mooy affaire parrainage bi ci boppam nañ ko xoolaat soit ñu abandonné ko comme beaucoup de pays démocratiques le font donte woon sax man nag. ànd naa ci ne waruñu yombal euh, laaj pal moo xam maire wala député wala président parce que ñett yooyu à peu mooy pal yi xam nga yeneen yëpp c'est le président qui nomme au poste civil et militaire mais ñett yooyu moom euh, nit ñi ñoo lay euh, élire ginnaaw yàlla donte woon pour man warta yomb donc war nañ trouver nuñ koy defee ba nga xam ni du ku mu neex nga wut say nit wut sa xaalis ñu war a mën a nekk suñu maire wala suñu député wala nekk président day bëri ay manipulation yu ci mën a aju moo tax man fan yi maa ngi doon réfléchir d'ailleurs ci ay critères par exemple pour man koo xam ne da bëgg a nekk député wala maire wala président mais jàpp naa ni bokk na ci critères yi ñu war a tegal mooy d'abord nationalité unique sénégalaise ah oui réewu Sénégal nga war a lijjanti waaw nationalité unique sénégalaise beneen bi mooy comme politique nga koy jaaree war nga. prouver que ni yaa ngi def ay activité politique au moins pendant un an def nga congrès def nga activité terrain mais xoolal xoolal sama genre yi nii en deux mois des élections nit ñëw créer partem wala coalition dem wuti ji législative wala mairie wala sax président pour man day yomb bu fekkee politique daf ko yitteel dëgg war na am déjà ay activités politiques au moins pendant un an ñu xam ne réew mi yitteel na ko mi ngi wax ci affaire politique di def ay meeting di bind ay document naan Sénégal lii laa ci bëgg et cetera et bu dee maire bi tamit muy wax mairie bi lii laa ci bëgg et cetera mais juste à quelques semaines nga dajaloog ay mbir rek diaspora bi yëpp ñu yónnee la ay million naan nañ yónnee ay oto pour nga nekk maire wala pour nga nekk député wala nga nekk président ça peut être très dangereux pour un pays gis nga même ay États-Unis les grands électeurs ah bi kon laaj na ñàkk donc il faut ñu trouver équilibre entre àq yelleef fu ku nekk ci euh, am sa parti politique ci compétition politique ak tamit ñu sécuriser réew mi aussi ba ñi nga xam ne ñooy nekk en compétition mu am tamit ay critères yuy tax ñu ñu sécuriser euh, poste électif yooyu euh, ñu rassurer ñu tamit ci ñi ci war a jot loolu man c'est important li nga wax tamit sur le plan tam technique affaire cuune ñu bàyyi ko affaire cuune ñu bàyyi ko fichier électoral bi ay milliards lañ ciy def chaque élection dugg na fi jaar na fii war nañ ko defee façon boo xam ni warul am ay dañoo amoon confusion fii loolu c'est pas normal kooku la la ci wax beneen bi aussi mooy man li ma gënal te loolu moo jaadu ci démocratie gis nga démocratie dëgg dañu war a fexe ba compétition bi ñi bëgg a bokk ñëpp te matal seen dossier euh, bokk ci kon buñ jéem a tànc kenn dañu war a bàyyi compétition bi loolu mooy tax sénégalais yi xam euh, ku nekk la mu wax la mu bëgg ci réew mi la mu bëgg ci gox bu dee mairie la la mu bëgg ci assemblée nationale la mu bëgg bu nekkee président mais jéem a ci ay nit ba ba ñu bañ a bokk loolu du yëfu gor te du yëfu euh, démocratie mais en même temps tamit la nga war a dajale ba bokk bul cuune cuune lu ba bañ koo matal boo ñëwee ñu la sa dossier matul nga ne damay xeex wala damay tànj réew mi euh, dañoo bañ ma bokk waaw loolu tam c'est pas responsable donc mais pour man nañu xajal ñëpp ba dossier bi ngeen mujjee wax ni ba ci Euh, que sëñ bu bokk Sénégal yi dégg li muy wax ñu ni neen la lan la programmé lan la bëgg su demee assemblée nationale ñu bàyyi ko mu wax buñ ko voté mu dem nekk député ñu nekk député fii dañ ko gën donc euh, beneen bi mooy que soo soo soo soo xoolee li ñuy wax ni actuellement liste yeewu bi dakaar ak euh, benn Bokk Yaakaar et et cetera man li ma favorable mooy que nañ fexe rek ah ba li nga xam ni moo indi problème ba liste bi ñu bañ koo accepter ñu ñu permettre ñooñu ñu corriger ko de façon correcte te ñu bàyyi leen ñu dem ci compétition bi loolu moom ma gënal euh, ñu tere kii euh, xatal kële bàyyi kii mu jàll ban ndam moo am ci gañe boo xam ni da tere ñeneen ñi bokk kooku du ndam sur le plan démocratique kon sénégal yi dañoo soxla offre politique nañ leen bàyyi ñu def seen offre mais quand tamit offre boo gis dañ koy réglementé amul benn pays ci monde bi boo xam ne da ngay fàqee fa la jóge ñëw teg sa dossier daal dem ci élection yi loolu tam amul fenn il faut pas aussi euh, que ñu déconne donc loolu une euh, boobu sur le plan administratif nañ ko teg fële de côté parce que mën na nekk sax de bonne fois effectivement dañoo def erreur mais mooy tax crise am mooy tax citoyen daal ne ñii dañu bëgg a tappale te fekk sax problème technique la mais am na ci foo xam ne nag amuloo droit am problème technique amuloo ci droit wala bu amee tamit war nga mën a clairement wax ne problème bu la bett la bu la ëpp doole la voilà kon soyons sérieux ah on manque de sérieux et de rigueur et de responsabilité dans ce pays là waaw professeur Amsatou Sow euh, Sidibé li may li may mujjee ci mooy lii lu fi jar dem ay tribunal man loolu mooy sama xalaat déjà c'est vrai que nag nit ki bu frustré mënoo wax à sa place mën nañoo imam Kanté non bu fekkoon noonu lañ ko def mais je me dis que déjà la buy doog a dugg ci affaire politique mën na am mu def erreur ci affaire parrainage yi Amsatou Sow Sidibé eneem la nekk euh, nit ku respectable ci réew mi nekk prof de droit euh, yàgg ci langue politique bi man yaakaar naa ni Pape Djibi Fall bu fekkee am nag moom malentendu euh, bu doon man damay jàpp ne Pape Djibi Fall dafa def erreur d'appréciation wala équipe am ñoo gérer parrainage yi bañ cee déggoog moom comme moom nee na daf ko jox parrainage ba pare mu jël ko def leneen pour man noonu laa koy considérer comme magam la ne ko rek attention lii erreur la beneen yoon bu la dal nañ waxtaan ba seet nag léegi et cetera surtout que Pape Djibi Fall li mu wax te moom weddiwu ko moo ñëw ci moom c'est important comme moom moo yaakaar dara ci xale bi te njëkk ko ci politique ba ñëw ci moom kon tamit na ko muñal su defee erreur mais wejante bi nii ak dem tribunal euh, sur le plan pratique politique yaakaar ma ni lu rafet la et que moo gën euh, donc Pape Djibril Fall aussi lépp lu mën a def rek pour rassurer ko euh, wan ko ni jéemuma la wor jéemuma la nax loolu tam dafa dafa baax kon nag euh, loolu laay wax ci ci ci dossier boobu. jërëjëf ko maa ngi leen sant di leen gërëm et à projet prochain incha allah ñu yendu jàmm jërëjëf.